Ndiaga Sarr numéro 2 doomu moo xatam ñaari combat espoir ñaar ñu tolloo taay tolloo gabari tolloo génération. loolu combat bu rëy Moussa Ba. ak yeneen combat yu bare bare boo xam ne Moussa Ba dafa am xale yoo xam ne dafa nekk ci làmb ji mooy Kairé ak Gris 2 ñoom ñëpp ñu naan kon combat kon Gris 2 di nga def combat ak Reug Reug. waaw Gris 2 nga def combat ak Reug Reug moom tamit bu def combat daa jafe. xasee bëri moom daal di ko am na ne comme al boobu ñu ko am na fële mooy des am ndeysaan kii di nga naan Moustapha Gueye tam sam yoo xam ni keroog lu ne xam ci stade bi waaye stade bi macha allah mais mais Moustapha keroog ba toog nit ñi tey jii mooy mélangeur gu gi mooy mélangeur gu gi mooy entraîneur am mooy aussi sëriñam tey tey tey course di ñaan waaw mais mais dégg naa bu màggatee nekk sëriñ yow de xanaa ko koo ñaan. commencé nga mais yor naa nag. waaw yor naa benn yor naa benn lancu. waaw waaw gis nga li nga wax ak ñoom de. waaw ak bi ñu wax ak ñoom de. maa ngi wax ak ñoom juge yi juge yi ñoo nekk ci làmb bi de. superviseur baa ngi leen di xool CNG ak li wër làmb bi yëpp di seetaan ñoo ngi leen di xool ak àddina bi xool télévision. waaw. jax ra waaw. ñu ngi suñu mbokk suñu suñu jarabaa Pape Alpha mu nekk ca Italie. ñoom si kaa ngi noonu ak ñoom si kaa ngi noonu ba Arteta la ñu koy nuyu ak ki nga xam mooy doy baal sama doom Thierno Thiam Sarr waaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaw waaw gaa yaa ngi noonu gaa yaa ngi noonu ndeysaan farandoo yóbbul farandoo yóbbul farandoo yóbbul farandoo neexul Pape Pape Mbengue ñu koy nuyu di nuyu Sarr ku nekk ban parti la jiital. waaw ku ne parti bu ne yow la jiital. si que nangu ndeyjoor. guy gi nangu càmmoñ. waaw ñëwal Abdoulaye fa nekk. ah waaw waaw loolu laa bëgg Abdoulaye. léegi noonu ñu jaay cee noonu. 1 mètre 50 moo dox seen diggante. guy gi ñëw na wàññi na ko mu nekk 1 mètre 40. dana jege. 1 mètre 30. ñu ko wax ma la. waaw 1 mètre 30. su te ñëw na mu nekk un mètre vingt cinq. foog nga mën leeral de. un mètre vingt. wet la ñu doxee. un mètre vingt. waaw yow ay yow. wet la doxee. xoolal boo si si ko bi foog nga def mu sama. ñaar gàtt. waaw waaye gàtt gi dem na ñaar gàtt. waaw waaw. loolu moom moo yor. waaw sooy baax sooy baax tamit ñu ngi ci ñu ngi ci un mètre vingt. croche gauche baa ngi. waaw ji bi ñeneen ñi ñoom de. waaw ñëpp dafa war a ngay. nga arbitre bi. waaw le vigilant wax na dëgg nañ ko ci dëggu géew. ci dëggu géew waa ji xoolal xoolal tubaab bi waaw waaw da ngay woo Atou da ngay seet fu Atou ne Atou réer na da nga wax dëgg yow Cheikh Thierno waaw nee na Atou réer na nañ ko laaj si tam yaa ngi fi waaw baram yaa ngi laalante kon yaa ngi laalante. kon mooy njëkk a door. te mel na ni dafa bëgg a xeex. ñu daal di fal nga dox ci kawam. waaw Souleymane Thiam. yéen ñëpp la njëkk. Souleymane Thiam dëkk Linguère da nga ne cinquante mille. Souleymane Thiam dëkk Linguère da nga ne cinquante mille. Souleymane Thiam moom mooy njëkk a door. woo leen woo leen woo leen léegi nag cent mille wala cinquante mille. jënd fraction jiw yi dañ ko taxawal. léegi demul. dina ko sol jàpp ko nañu. jàpp ko nañu. jàpp ko nañu. Thank you.

amagul jox la jox bala boole bi lii mu def tey amatu ko woon kon li mu amoon mi ngi dellu si. am na solo dafa am solo moom mooy Doudou Kadiara mi ngi nekk système défensif defagul benn action ki mën la débat actuellement nii mooy si kër. waaw ñu ngi naan ñoo ngi jàppoo ba nga lay gis nga ko bu ko defee woo. ah ñu ngi ñu ngi doon ñaar la woon. ay frein dafa faaw parce que bu ñu defoon dafa faaw du jàpp tellement si mën na dugg parce que ASC dafa bañ a am ñoom la jàpp war na mën a dugal bopp ci suuf bi waaw mais fii ko bi trop que fii kenn na fay jàpp wala maa ci bind jàpp astis la astis la ko jàpp tracé wu def sama la gis xoolal loxo ni jaarul si te fi mu tee xoolal loxo bi fi mu tee mooy blocage bi mooy blocage bi tiir la

li ci waroon a def j'ai manœuvre manœuvre bi xam nga lan pour pour kuy kuy kuy ñu utiliser bu bëri. waaw monsieur Ba dégg nga monsieur Thiel wax dëgg sax. dañ doon bëgg duñ di sori ci boppam. si si loolu loolu mooy li ñu waxoon suba de rek. parce que boobu bari na kontaan moom si te si te bàyyi la ko moom jàppoon. man bopp bopp bu si te bàyyi la ko mu jàppoon. waaw si te war loolu bàyyi fu mu jàppoon nag.

ランドするなんだこれアウィー Même chose Somebody, my lord. You might bring me out of me. projet bi nga xamante ne moom la si da def taxaw noppalu jël temps taxaw noppalu jël temps taxaw noppalu jël temps ay at Moussa dafa am lu ko xool place bi suba di nga bëree di nga xeex loolu la andi bon man nag euh, surprise mooy si dama yaakaar dafa ñëw taxaw indil ko bagarre xaar ko. voilà mais mu ñëw rek attaqué le combat combat épreuve de force euh, ça va pas trop. bëri na jéem na nag xool ko bëri na nag bëri na ba dëkk kuy gaaw a jàpp ca kii waaw bu bàyyi bu bàyyi dem seeti ko encore te tuure comme si tëdd. waaw jëmbal ko imposé ko encore. mbootante aha. mais

les encouragements à Siteu yàlla Sénégal nii rek la du dëgg ñu euh, ñaan yàlla rek dolli jàmm dolli sutura yi waaw incha allah parce que xam naa ni sama saison moom. waaw mais mais mais mais sa collaboration ak Kourou Siteu Média déggoo li ma la sant yàlla rek. lii moom avancement bi la rek mais lii ñëw moo tax sox mu ngi ñëw ak groupe Futurs Médias te su ma ko waxee rek gëm leen bu soobee yàlla fas yéene nañu def lu rëy lu Sénégal yëpp di coow incha allah rabbi El Hadj Abdoul Aziz Mbaye jërëjëf jërëjëf maa ngi sant ñëpp sant sama mbokk taalibe Cheikh Thierno Abdoul Aziz Mbaye sama mag Moustapha Gueye sama xarit gërëm ñëpp sant ñëpp yàlla yàlla def jàmm merci dama mu doon seet dama mu doon benn seet Vai ter que me parar de lançar no mundo. Vai chamar o meu waaw waaw Bargama maa ngi noonu defe naa ne mbokk yi tey jii fii ci stade Léopold Sédar Senghor guy gi egg si na ci kaw plateau bi defe naa ne mi ngi jooy waaye jooy bànneex lay doon guy gaa ngi sëgg ndax xam na lu mu xalaat Cheikh Thiago dama ko joxal micro bi. waaye duñ ñu jox guy gi. waaw ñu jox ko yéen guy gi yéen. na ko bàyyi tuuti mais nanu waxtaan i am you. the carrière Moustapha seen ami seen ami moom moom carrière dafa am lu mu yëg dafa am lu mu yëg dafa am lu mu yëg dafa leen fàttali guy gi dafa am jaar jaar guy gi dafa tegale ay ay defet génn situation boo xamante ne presque gars yi génne woon nañu ko làmb ji tey bu dee subaatee ci bis bu mel nii nag xam naa ci loxo bi di fudd rek mu jooy ak bisimilah guy gi waaw waaw mais léegi certainement xam nga mbër bu tollee fii am na lu mu moo tax bala ñuy waxtaan ak moom nañ ko bàyyi tuuti maa ngi yow ak Moussa Ba ñu waxtaan lan nga yëg mu Cheikh Thierno. alhamdulilah min seytaani rajim. waaw. bismillahi rahmaani rahim. parce que yow jur jënd sama sama ñaar waajur maa ngi sama sëñ Cheikh Seck borom ndigal di ñaan Sénégal yàlla ñu am yàgg di wér di nuyu waa Thierno Seck bu baax waa Thierno Seck maa nuyu bu baax maa nuyu waa Thierno Seck bu baax maa nuyu waa Thierno Sénégal mun ma wax. waaw mais Gouye a doon ci làmb. waaw tey mu demee nii va sama papa Saba Gueye munoo fii laa bëree woon mu daw ñëw si ma ne ma sa sama nit bu ko bàyyi. bon maa ngi ci yoon bu baax mais yàlla moo delloo su ma teeloon sotti mu naam sax du ma ko ma nangu ko li tax ma kii ma doon bëreel kii ma doon bëreel. billaahi wallaahi taalaahi. sama xol laa koy Siteu. ndeysaan billahi wala barki seexu canaba kii ma doon sama xol laa ko def. ndeysaan Siteu boo seetloo ñu doon bëreel danañ teg pression mais bu ñoo siis bu ñuy ak ma signature du sigg xool ma. ma ne ko doomu ma gën a nekk kor dinañ neexal combat bi ba mu neex. eh waaw père in mu li nga fonte mu gi gi gi gi gi la ñuy wax te loolu Moussa yaa ko fomp dem na dem ñun ñu liggéey ba ci indi Moussa bi. léegi Gris Bordeaux la ñuy wax kii mbër la xam na ne moom du ko bañ. waaw waaw ci la dégg. waaw léegi léegi Fane Fane Fane Fane dama la bëgg a laaj. dama la laaj ma Siteu damay am suuf si moom Kole. mais Siteu dama ko ne neexal combat ba mu neex ay góor lañu mbër bi ma gën a sote fonk ma mooy Siteu. Hmm. ma ne mbër gi ma gën a fonk mooy Siteu ci contrat jàmbur lañ nekkoon. mais dafa am li war waaw léegi parce que boo ñëwee ci plateau bi dañ lay laaj dama bëgg indil ma li xam ne mooy combat bi mu commenter ma ko parce que waaw indil ma mais guy gi dafa am foo nekkoon am am loo gis am moo faral maa ngi bu baax léegi da ngay da ngay dal ñu waxtaan parce que téléspectateurs yi nekk ci réew mi ak ci réew yow la ñu soxla fi sa kàddu te ci yoon bu njëkk bi sa préparation bi ci lan nga ko est-ce que père ne moo wax. kuy hmm? gi ak mii y a différence dë. Hmm. ñëpp dañ ma ñëpp hmm. ma des ak war saar ak sama doom yi du ma lim am na ñoo xam sax dañu mën a santar ngir saar war saar ku ma ay millions te bëggoo bugguma la. ay millions nga jox ma ko boo ko war a sax dama jàppale. wallaahi wasi bu ma ko lekk yàlla nekk sama càngaay. dama am lu dama koy gàttal rek. ñu bëri boycotté ma. ma dem États-Unis di këram Abdou a ñoom poussé man moom laa may vidéo bi ñëpp jàppale ma père Tafaage xam ne ma bu mu gisee guy yi xam ne guy bi am na changement. dëgg la entraîné naa ñetti hôpital cent vingt cent vingt cinq New York pour faju cent cinquante kilos laa teg di ma ne lii Sénégal bu ñu gisee dañ may jàpp ma ñëw wàcc booy ne waa kii guy gi ma leen guy gi la naan damaa sonn xool ak liggéeyee. Mm-hmm. yàlla baax am na am nañu amaat ci làmb. Mm-hmm. ki ma daan mënu ma ko de mënu ma may ndam. Mm-hmm. wax naa ko avant ñu ma ne bu ma waxoon foo ndam nekk du ma bokkaale julli laa taal ba Cheikh Mati yàlla. du ma wax lu mu wóor. waaw waaw guy gi. combat ñu ngi lewtoo wax. fii dama xam ni mën naa xeex moom juum. waaw te bu ma dóoree ma maam bu ma jëlee ku. waaw mën sama làmb. waaw xoolal combat bi rek nga ko dem. donc demal demal demal demal apulaay su ma su ñu lewtoo. waaw ñu mu dugg ay kuy métti nag. dëgg la yow xam ni. xam naa li mu doon wax Baye Fall gëm naa bi ma nee zip. waaw ah, mën naa jébalu. mais li def sama ginnaaw ñoom Zé ñoom Maytin su ma limee damay jum dama teg lu métti. waaw comme Baba ngi nag xoolal yi. xoolal loolu xoolal loolu. xanaa ko. waaw mais waxal demal demal ko. non sama bopp dafaa ngay laaj bàyyi mu commandé. léegi jàpp na dama toog du ma toog ak kenn muy commandé. waaw léegi bi mu dooree nii. bëgg maa jaay comme bëri xale. waaw man ko man. ah ko mag mais bëriwul. dama ni waaw rek. xoolal damay dem mais man taxawaat parce que am na loo xam ne sax moom moom ko am su ma waxee bu fekkoon dara néew damay peese kon jël bu xaar xaar la may daane. si si sa baab moo faram sànq dara ma ràccal peese wu écart amul fu jaar ci te champion la champion la bëri nag sa bopp dafa la. si si kon su ma waxee dara moo a mm-hmm. sama coach ma ñëw fii 40 minutes du ma tax jaay sama ngor. mu ngi nii fii fii fii fii fii nga def deux temps xarma. mais dama ko bàyyi tànk gis nga ceeb yi dama ko bàyyi tànk tànk yi moo am dara gaar macha allah dañ ko liggéey. ba presse. Eh, la ba tey nga jéggi. waaw nga jéggi ñaari yoon. ma jéggi quatre fois sax laa jéggi. ñaareel yi yow doo ko gis. nekk ci boobu sax laa def du ma deux ans ma xam ne ma jéem a mbot ma ne ko nañ dem sama for gauche la ak tànk bi bi mu ñëwee forcé ba teg suuf bëgg écarté laa ko dóor yokk ko bàyyi ko. bi ko dóoree yokk ko bàyyi ko. bëri naa ko ak Mbaye Tine bëri naa ko ak euh, diwaan sama entraînement. boole naa ko ak tuuti sax. mi ngi nii mi ngi nii mi ngi nii. mi ngi nii moo ne ma. waaw kon sama fort la. mais damaa ree damaa ree am sama fort la. waaw sama la. mais nag mënu ma wax ci lu bari ci combat bi. Ah. ndax ki may bëre dafa ko may bëreel suma la ki may bëreel suma ma ñu ak na ma ne ko suma rek laay bëreel ku ma ne si man ci ay loxo laa nekk sa papa tabax yi xam na fuy sama yoon. waaw mais mais dama laaj moo rek xam nga laat ak Pape Fall suma njiglaay lañ man laat ñu bëri naa ma faral ak moom mais jikko si àdduna la yor. surtout surtout guy gi guy gi dafa am léegi loo wax danga ni li nu fomp léegi tuuti kii foofu la est-ce que kii foofu la. non boobu mooy suuf daal damaa kii. ah non man sama non non non boobu la. boobu la sama yoon du ci nekk. am nga doon ànd ak ku la neex. maa ma nii. dafa am laa toog jaay fam dafa kii dafa gën wuti ko kii ko doon fa kii. sa baab mais c'est am ndax moo doon kii du ma wax sa baab kii mooy mbërëm sa baab dama na la ram sama kaam ndax kii. waaw bi muy mot dafa gën kii baaboo deux temps yi. waaw mais bu dul kii boo doon kan nga xalaat. man dama nekk ci yoon. yoon bi heure bi boo bëgg a dajeel. heure bi boo bëgg a dajeel. man musuma tudd tur père musuma tudd tur mais yéen est-ce que père yi. war na la ko Pape Thierno. loolu ñu may laaj. da ngay lamb lot. wax rek. na la bàyyi nga gis naa combat bu neex na la bàyyi nga tudd soxla. gis naa combat bu neex pour guy gii. rëy guy gii Papa Sow. ah non non non non non non non eh. eh eh eh. ñun nabi bi di. comment la day wax li xam ne moom la bëgg. yéen ñu liggéey ñu wax Mor Fara man néew ma pour kenn. Rămâne cu trava echipei Ghideai, drabu Ghideai. Gribordou, Gribordou, Gribordou, boxe yëpp waxoon nañ leen ko ni leen ko waxee su leen nekkee suba ku nekk mën nga am adversaire ñu dëgg leen ci kàttanu yàlla waaye nag ñi ngi rendez-vous bi ci Lac Rose Moussa Ndoye stade Iba Mar lay doon le treize le mardi open press euh, euh, Lac Rose mercredi Moussa Ndoye di gërëm drapeau Assane Diakhaté buy di buy di buy di buy maa ngi maa ngi gërëm adduna maa ngi gërëm waa Canaba maa ngi gërëm waa Gambi maa gi yëpp maa ngi war a saar jàmm victoire bi Boussa ak Nasra may Guusa ak Nas ak waa États-Unis yëpp mi ne naa boori noo gis alkali xaalis bi ñëpp di gërëm Masata Ala Ndiaye Masata Ala Ndiaye di gërëm Masata Ala Ndiaye di gërëm Soora gërëm Badu gërëm Xale